nuyu naa leen ziar leen jaajëfal leen bu baax baax tey nag euh, le 23 décembre euh, ci seen émission Yoor Yooru Prix Infos point com ci ànd ak Sonia fii ñu ci seen émission Yoor di leen nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo yaa ngi ñuy bàyyi xel a baax di ak li ko wër nuyu nañ leen leen bu baax a baax Yoor Yooru nag dañ euh, nga xam ne euh, ci biir euh, tamit la laal tey parce que boobu tey rappeurs yi ñoo nag ñu euh, am ci suñu invité boo xam ne bii euh, doomu Koungheul la ñu gën ko xam ci saaw euh, famille fii ci biir Koungheul nag yaakaar naa ne xam nañ ko bu baax a baax di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu sama PDG di nuyu samay personnel wu Fii Info yëpp yëpp nuyu naa leen sargal leen jaajëfal leen bu baax a baax di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ko ca marché damay tënk nuyu bi rek parce que waxtu bi daf ñëwoon ndox moo tax rek képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg fi info ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu bu baax a baax di la ziar ci suñu émission yor yoru fi info sànq tey nag dama am sama invité kooku ci Firi Info moo doon rappel boo xam ne kenn dootu ko présenté ci biir Koungheul nuyu ko ziar ko bu baax a baax saw nuyu naa la. fay na wala. nuyu naa la bu baax a baax. kontaan bu baax salaam salaam Saalum Chéri salaam Issa Saw aka Mango doomu Sénégal mbay mi tey nag fii fi nga xamante ni mooy bu mag bu mag a mag mag mag waaw laa leen ko rek fii nga xamante ne à tout gaa yi man man lay toog. dëgg la lay a baax moom mooy Sow ma leen ko waxee mu doon na sama invité tey nag moo leen nuyoo noonu mu ngi si yoon bi ah di def man gëm na nag xale yi comme moom la ñu topp fii ci seen émission Yoor Yoor Sow famille man bu ma déggee Sow turu Sow Sow famille mooy la. waaw Sall Famille bi su sant la rek xam nga artiste dañuy bëgg seen tur di ko luxus ñii di ko di ko def ni man su sant la. sa sant ah, la mais Sall Famille ñaari artiste man ak suma rak ñu mhm. naan suma rak bàyyi mhm. léegi mu def Sall Famille moom la gars yi kon demee léegi Sall Famille. mooy turu kii bi quoi ah, mais turu Sall dëgg la. saw saw sama santan sesantan me tur bilar na tur tur beda ken waaw sama tur ken mënu ko joxe da no na ko jox gaay mu ngi gaay mu lu sa da ngay jukk est lu mako bank ko mo no koy bank re ñu gaay ni ko commencé na ñaan na té la xew woon saw family moy turu rappeur bi fu mu nekk ni bu ñu bëggee xam kan mom moy saw ak kaña la door ci musique bi Mhm. waaw loolu yomb na de. waaw loolu yomb na man damay noté. Mhm. damay denc de sama carrière banque la rek. Mhm. damay noté. yaa ngi nekk décembre mu retiré décembre mu dugal. waaw mu commencé musique deux mille vingt et un. deux mille vingt deux mille dix neuf laa commencé. waaw premier single yaa rasulullah mais am nga single yow. waaw am naa single am ay vidéo mais fu mu nekk nii yow fii nga dooree ci biir Koungheul wala yow da ngay génn. non non non Gambia laa dooree musique. Gambia laa dooree musique. ñaata nga fa def. yàlla Gambia 2005 laa fa def. ba 2021. ba 2021 nga génnee sa benn single. waaw 2019 laa génne sama single yàlla single bi mu ngi gàttoon. waaw alhamdulilah te nga wane ne fi nga koy tepp tepp moo gën yore pël. comme ni ko gars yi waxee. loolu lay nga commencé. rab bi. mais yow ci rab bi rek nga yem. wala poli fanaa nga ci rab bi. damay way damay rab damay ñun musique def. musique ngay def. amul frontière. amul frontière. wala ma jàll ba Gambie peut-être ñëw mais fu mu nekk nii saw dafa am groupe am wala saw moom kenn mooy def. waaw saw mu ngi nii de man kenn kese. yow ya, kese waaw moom rek. mais yow ya, amul benn featuring boo defal ak yeneen artiste rappeur yi. maa ëpp featuring ku ngeen. yaa maa ëpp featuring ku ngeen bépp artiste bi taxaw ku ngeen ku ngeen mën naa mën naa wax. yaa ko ma artiste artiste ba xam lu neex. sa moom teg loxo. Ah, non loolu teg tànk sax teg loxo rek mais xam nga ku nekk xam nga musique mu benn baax garab la nii rek ma gaaw kii day aw nii kii aw nii. bi mhm. am nañu jaar seen yoon man sama yoon bi muy daa gën a mokk rek yoolal si. amul yoonu saret dafa am. dëgg la yoonu tànk am. dëgg la tali am. dëgg la waaw ñun day demee ku nekk xam nga yore yi gën a tàngawaal. waaw xaj na li may def mooy jox ci xolu bëri yi. ah loolu moom am na moom parce que xale yi jox nañ la kii bopp de. waaw ci ni ma ko gisee nii xale yi jox nañ la bopp. noonu laa ko bëggee nag. noonu nga ko bëgg te loolu liggéey eh, rek moo ah, koy wane. waaw ñoo koy. non loolu mais fu mu nekk nii saaw fu mu nekk nii yow génne nga benn single depuis yow ban mois nga génne single wala ban année. ban année. premier single maa ko génne deux mille même dina maa ko ma man bu mu nekk nii actuellement yow ñaata son lañ mën a teg nii ci table ne yaa ngi dégg. moom laa génne ñaata son laa génne ñoom ñu ngi toll nii onze. onze son yaa ngi moom. laa génne waaw. man tey ma génne. ba fu mu nekk nii producteur bu ñëwoon tey jii. saw pare na pour génne kasetam. waaw producteur moom pare naa ah, pare ma. pare naa pare ma man fukki yow wu ma de man même su may góorlu góorlu sax di ñàkk li ma war a am xam naa ne nga fukki yow wu ma ñëw ma xaar ma kaa jëm ma produit ñii ñii ci kese. waaw saa wu muy nii xam nga saa wu lan xaar. non xaaruma xaaruma de. maa ngi dem de. yaa ngi dem maa ngi dem bi ma de mais xam nga mbir mi dafa xaalis boo ko amul. doo mën a exploiter bu bëri mais nag xaalis boobu bu nga jaay sa dignité wala sa ngor wala sa carrière nga cuub daal drapeau bi duñ cuub drapeau bi te xam naa day ñëw. te yow doo cuub drapeau. non non non dama cuub drapeau bi day ñëw tey pare nga pour ji mais yow dafa mel ni saaw dafa ma looy xaar yow. non xaaruma dara de. pare naa pare naa mais xam nga yu anglais discours la waxtaan la ah, tey bu ñëwee bu ñu waxtaanee bu ñu jubóowee ah ma dem man xaaral ma kenn ci ban fànn waxtaan bu nekk waxtaan bu jubóo rek ndax musique dafa am ak yoon tey boo yoroon tey exemple nga yor sa label boobu nga ne damaa bëgg signé artiste boo ñëwee dañuy waxtaan wala man boo muy signé temps la ngay signé nii ak nii deux cent la li nga may fay bu dee déggoo nañ ci nga signé ma ak ah, année yow yaa ma moom jeexal mooy loolu mooy loolu mais su fekkee itam am na yeneen grand wala yeneen cool grand yi nga xam ne dañuy yor seen somme ni di jàppale nit ñi rek yàlla tax loolu lay am mais bi nañu tombé ba loolu boo ñëwee nga ne ah am naa lii bëgg naa ñu jox wala kaay ñi ma jox ay yoon ak yow. ndax ji fekk loxol borom. mais nag xaaral ñu kenn ci lenn chaque jour dañ ciy nekk. mais yow fu mu nekk nii yow yaa ngi dox yaa ngi dox ci carré boobu. waaw man kay maa ngi ci dox côté ba nekk su ma xëyee suba ba ngoon jot ci musique sama métier bi laay dox nekk ci waar sama mi as tuut bii dem nii wàll bi dem nii musique dama koy jox chaque maa ngi koy lebal mu amagul war rek ba ñu lay mais mais dama koy topp de. dama koy topp loolu suuf est mën nañu xam saaw fu mu nekk nii yow mës nga est mës nga organiser loo xam ne lii fii nii ci biir Koungheul. waaw moom naa fi def moom mais benn yoon ak woon non ma ne la amaat amaat anniversaire. ko concert. mais amoo habitude daal di kii di doy di organiser ay concert di invité yeneen nga xam ne ñu ci dëkk dëkkaat waaw mooy li ma expliqué loolu loolu bi ñu ko defee invité nañ yeneen ci biti mais concert xaalis da def. xaalis koy concert xaalis kese jox itam lu loo xamante nit ñi bëgg ne la ba leer na yàlla ngaa ngi tuuti public nga mën a def concert tey boo jow tojoo fenn boo defee concert boo ñëwee ku lay seetaan ku nga fi de. xam ne ñoo nekk kuréel. waaw saaw maa ngi xarit ñëpp la gars yi

bu loolu bu ñu déggee turu saaw duñ nelaw. duñ nelaw waaye lu war a loolu dañ may kalaas. saaw yóbbu seen seen ci liggéey bi jóg bi moo ko waral wala nu mu demee. mën leen saaw daal moom mooy marché. man man man marché laa tuddee sama bopp ñëpp ci man la ñuy dugg si. mais ku ñëw dugg si itam. da ngay bàyyi la. da ngay bàyyi boo ñëwee ci bu foog ne yóbbu nga bàyyi ko loo ko bàyyi noonu lay seet waaw xamal gars yi loolu noonu nga leen bari ñuy sànni yëpp garaaw. kon marché la. yow marché xeet bu nekk ñëw. ku nekkee ñëw. yow di nga enquête daal daa yóbbu mi rek fay bàyyi. d'accord mais bu ñu ñëwee rek yaa ngi ci man maa ngi man maa ngi gën a capable. gën nañoo bandi gën nañoo saay saay ba pare mën leen lu ma ci ragal tous. yooyu moom kon tey yaay soog émission. yooyu bu leen neexee. Mhm. ñu def seen bopp dama leen mën ci sañse uh-huh. ci lépp. texte yi. mais ki par exemple yi. Mhm. ak yi may def ci CSP. yëpp laa leen. yooyu yëpp yow yow danga. maa ngi gën a artistique man da ngay xool nga xam ne kii artiste la. ah d'accord même pas nga koy jaawale. moo tax ñooy bàyyi xel xam naa. Ah, hmm? mhm. kii kii la fi xel pour ñu man bàyyi ñu xel man man fukki ma. fukki am lu ah, xam nga. soo tàllee ñu ànd jox man nii mënuñ ma raw ci musique raw ci musique boo ko waxee dèjà même lu a siiw musique fii la esprit man man man man man man musique may def mu ngi am ah, ko ngi nag bëri na ay mais nañ def lu ñuy mais est am na ñoo xam ne dinañ ñëw ñëw pour ñu def benn fitiri nee naa la ma ci fitiri artiste yu bëri laa may fitiri fitiri eh, ko defee daal moom. ñoom la ñoom. ah mais yow ban avantage man man non ba tey laaloo ko. Hmm? ci côté presse ko. loolu ma ko gaaw a laal ah, sa waay la wala dafa am. non su ma rakk la. ah su ma lépp la ndax xam ah. yow bokk la bi ñuy xanaa. ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk lu ñuy naan ñoo bokk la ñuy soxla. ñoo bokk xalaat suñ xëy suba mu ngoon jot lépp lu ñuy ñu ah, xam nga ñun amul fi mhm. bokk ak man. ah ñëw Gambie presque mën koo gis. Gambie laa gisee. ñu mhm. ñëwee Gambie. nga xam fii dama kaa dégg rek. gars yi boole ko man. jógee ko fii soldat la ñu. fekk na fekk na fa. fekk yaa ngi toj jàmm. ah non man dégg naa doomu ko ngeen na. Mhm. te yaa ngi jox naa te yaa ngi saare fii dama bëgg jox ak yow. nga jàppale ma ci. ma ne ko man ma la jàppale ndax yaa ngi pourtant dañuy weccoo. mu ne ma dañuy weccoo yow dégg ay soxla ma sama soxla ma ko ma ko firee rus naa ko dégg. déggul sama soxla ma koy bàyyi ba ñëw si jóg. produit bi tegal ko mu dégg samay soxla. Mhm. ma ne ko ku way kii ma ne ko saa ma ne ma yow loolu la kon fa yow loolu rek man ma noo ma mën mën dama dama opportunité boo amul ngir amul ay studio yoo xamante ne moom ah, mais nag mhm. loolu son. son ko a marqué mhm. son son bi gën a marqué nit ñi. daa gën a ko defee te son boobu jël ko sax moom son bi gën a marqué nit ci moom. ci moom mu mengurus saja nih mendem so gitu nama kini ni punya malu nyaman ada kok kita kan sila sila jelas so pikirin bagdad pikirin mebo pasti kan menurut Om, menarik dua itu sih. Wah, bu, menyaman itu tuh cuma pasti nyanyi wah kau masak. Waktu berda kamu mau tuh sal. Hebat. Yo medini. Milo Hebat kan? Gimana lagi semua orang ya. Eh, jadi musik Dan semua ya Rabbi lewu ya. Yeng. Jadi budak badga. Kayak wan masa mungkin dalam mungkin su. Budak badga. Kayak wan mungkin dalam mu gis loolu la soo ko. ñax moom yéen ko wéy. waaw ngi ñoo moo ko ñoo ko def soo ko tax. yéen ko def quoi. moo tax yéen. xam xale yi kii quoi xale yi. xam ci benn bi après nag mais doog a di leen. Udah sapa ini ya. Akhirnya sa sa sa lo lo lo sebenarnya dia sa bo organisasi garan man dina Pas kayak uling uling ngomong ini. yang boleh. Akhirnya yang boleh nyumnya organisasi. Nyum akhirnya. Maksudnya organisasi lu nyum nyum ini sih. Nyum nyum bagi yang mana aja nyum. punya dari jadi orang apa kan rapor lo banyak gua rapor. Rapor banyak gua. Eh benar ini sendiri lo free info ya. Free info wiki am free invité boo xam ne nag euh, ko saaw ah dégg ko moom nu mu waxee moom mooy bi nga xam ne xale yi jox ko bokk ko nu ko waxee ah ma ne bi euh, artiste yi nekk fii may ne ne fitting loolu nag euh, saaw sa baax la wala yow mën a woy bi nga mën a woy moo tax xale yi nga leen di gunge wala nu mu demee noonu. man bëgg a siiw la. non bëgg a siiw la. tey bëri na ñu ngi may fii nii yoo xamante ne yàlla ah, gën a. a siiw yàlla a mais. jàppale ko gëm a valoriser. man yooyu bi mu koy def nekkul bëgg a siiw nekkul neex ba nekkul mën a wéy dama jàpp ne dama koy def rek pour ñu nekk suñu biir ñu jàppalante ku nekk tey am nga moo xam saa wax rek moo fi jëriñ boo ko ko dégloo tey a ci xamee bëri yi ma def fii mhm. rien que rek may leen doole a am a jàll di déglu fii ñu bëri ñoo xamante ne seen son yi dañ koy mënoo ma déglu. ndax mënuñu wéy wala mu dem. neexul mënuñu. neexul. léegi nag neexul mënuñu da ngeen di jàppale ma ci. ñu jàppale di may ñu commencé am ay kii. commencé a classe. dina sànni ay xeer mais gis nga ñu mujj ndax da ngay génne lu ñu ko dégg man boo ma classé damay fay wala dal sa war ngay xëy di ko gis ci télé di kii sa téléphone gone di ko sën mu lay naxari sa gel bi di ko di ko naan di ko def statut nga koy gis des fois nga am muy néew yi tuuti xam nga di gën a métti muy néew yi léegi rees léegi xam nga te doo xam nga yooyu moom saa yëgul. waaw saa yëgul man damaa taamu yu neex. man ci kaw yooyu yëpp yow sax nga nekk artiste bu Koungheul que yaa ngi génn ngay am invitation ci biti comme ay Dakar ak yooyu noonu. waaw xam nañ ne foofu ko xamuñu benn benn ñu xam suñu amee côté. au niveau de Kaffrine ay Kaolack yooyu la. Dakar ngay gis noonu. ngay gis noonu. tey TFM. man man musique musique maye ko ma dara man sama métier bi li ma may moom mooy musique may man bëri na artiste yi nekk di toog nekk teel. waaw dafa yow da nga nga am beneen job booy def. waaw na beneen job bi muy mhm. mhm. ma lu bari moo tax gis nga métti maa ngi xaar. ku leen a yàggu. Mhm. ne ko maa ngi baax man dama ma coowal ni ma mel moo tax. mais dafa mel ni yow dafa am looy waajal de ni ngay waxee dafa mel na nga taxaw danga bëgg gaa yi bu yàgg laa taxaw loolu lay wax rek Koungheul muñ ko la waxee bamtuwaat ci télé bi man lu may rab ko fii billaay kii atuma Koungheul gi atuma ni ko paase fii lu ma la fii suñu musique dafa ko kaal dëkk bi moo dëkk bi moo moo kii mais dëkk bi yow fu nekk nii dëkk bi la war a mën a jàppale nga dëkk bi ñoo war a jàppale mais dëkk bi dafa am nañu jàppale xoolal ñu fii liggéey rek dëkk bi war nañu jàppale dëkk bi ñu ngi jàppale xam nga booy def li nga xamante ni dëkk bi xamuñu ko pour nga xaar ci ndimbal day nekk mais est-ce que loolu tamit yow loolu exploité a xay ñu nit de xam ay firiyem ko di ay yeneen ci yii am na ñoo xamante ne buñ toogee gis kanamu saa firiyem mhm. ko. nga xay kii ne rapport. kese xolal day saa am na lu ñu am temps sax mais ñu xaaral ko dem lu ñu lu ñu lu ñu égal am na ñu ci. mais saa est-ce que mhm. nga léegi. Mhm. ñoom ñi tëdd seen néeg ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg. ñun ñun ñun ñun dañuy jóg. moo tax tey jamono ñu toll nii li bi am ndam football bi amoo ko xam nga tey rab bi tey andi na torop bi ku ngeen département tey ñi war a dem fas fes na Fatick. comprendre ñu ne li ñuy def ñu ne musique traditionnelle Koungheul la ñuy jël yóbbu ko rek soo rekaté kon Koungheul gagné na musique Koungheul département soo lay tax soo lay tax Koungheul moo teg tànk ci musique mënuñ ko mënuñ ko mënuñ ko nag moo teg tànk ci rap moo teg tànk ci musique ah, traditionnelle kon ñu ni ngi def ñu bu gars yi boo xëy bu ñu bokkul ñu ngi def kon xaar ñu leen de bu leen neexee nañ ñëw seen wàll la ñu ñëw jàppale ñu vers vers li ñuy def nga xam ne li nga moom loolu du xaar ko ci woo tey yéen waa yéen waa Firiyeem bu ngeen gisee ne saaw yi artisan yi ak nii ah da ngeen xaar. noonu xaaroon di def nii li li li li xam mu yokk ci man. pour artisan yi mu yokk ci man. léegi ñeneen ñi nañ ko def nag. ah d'accord waaw you have to think something. before da nga war a xalaat dara balaa ñëw ci yow. ndax xel pour xalaat la. li nga moom boo nekk nit boo nekk ci dëkk da fexe bàyyi ko li ngay def nii say sët dañuy fekk wéy la man li ngay def nii loolu wéy la même dawalkatu saretu mbaam bi na fekk même na fexe nekk exemple ne tey bu ñu tuddee dawalkatu saretu mbaam bi xel bi daj ko. xel daj nga war a ko seet boo nga nekk nit ko ne et puis bàyyi mooy nii ñooñu loolu lu leen di wax mooy ñu ñëw rek ñëw dimbali wala ñu gunge de bi ñu dimbali seen bopp la ñu dimbali yàlla loolu maa ko wax de fii am kenn kuy ñëw dimbali ma sa bopp ngay dimbali yàlla moo jàppal ma ni kaan lillahi kaan laahu da ngay nekk man ma nekkal na yaa xamul naa sama waaye xamul laa da ngay yërëm doomu aadama jaay ku yërëm nit man yàlla du ma la yërëm kon lépp loo def bu mu foog nit nga ko defal mais am na dafa ñoo xam ne pour ñoom yaa ngi dégg bu ñu jëmmalee nit rek ñoom ñoom la am. Ah, ci gàtt xam-xam lu man su ma la joxoon benn téeméer dama jàpp ne téeméer maa ko moom ndax yaa moom ndax bu ko moomoon dama koy lekk force. comprendre nit ki li nga moom da nga koy lekk force tey daawale ni li ma defal nii lii. def lu ma pare boppam la ko a xam nga daa ko boppam. tey bi ci yiw di génne wala lenn ci génne moom moo koy gaañ bénéfice bu baax moom moo koy gaañ lépp moom moo koy gaañ. amaana ma dinaa fi gaañ. mais mais man man fu ci man fu ci gaañee yàlla nee moom laa a sant. te man moo ko santee kon moom la. dañ comme njàng xam-xam buñ ko xoolee. nit ki lépp lay def rek jiital ci ne man lii may def nii soo ko laa def li nga boo ko nit bu la fayal bon sax ah, kii dama kaa li mu ñëw xor ma ñëw def li xam lu tax ba mu def ci jëf doon xaar kooku ah, te kooku xelam moom àggul fu mu lay sant wala léegi mooy nit ki looy def lu nekk rek def ko ngir si bopp ngir sa bopp ba déggee ñu ne yàlla tax gis nga nit boo demee bay def dara ngir yow rek yàlla ndax sa jëmm ji yàlla ji yàlla comprendre léegi loo def yow ci lu baax sa bopp. ñu ne yàlla la ah ba tey ci claqué lépp ma nekk nii saaw est xam saaw dafa doon wala wala saaw. dafa doon rab bi dafa fekk famille dafa am ñoo xam ne ñu fi rab. mulai leen di toppandoo di ànd ak ñoom wala saaw dafa ñëw rek naturellement mu mujj. doon na waral. am am maam ji wëy. am na yaay ji yow sa biir. amoo si sa fan kenn man rek maa si la. ah d'accord man kese. dèjà paa yi di benn. warutoon a def lii. ah d'accord ñii naa nii mais nu ma ci woon. ñëw na war na. man xayma laa ko man dal laa ah pour famille. nga gis fang bi kenn mënu ci ñëw nga toog di xalaat di dund di way. mais yaa ngi fi bopp yaa ngi fi sama bopp nga dem bi dem ba nit ñi de la man jàngu tubaab man alxuraan laa jàng. ah su ma bind sama way tubaab bi laa koy bindee dama ko ñëwaat loolu loolu loolu du yàlla mën ko may. yow man jàngu tubaab. jàngu ma tubaab jàngu ma dara alxuraan rek laa jàng. mais ñëw ma ñu jàng luñ bind ma bind ko luñ bind luñ bind ma bind ko luñ ma seetloo. te yaay bind sa bopp. du ma leen laaj dara. bindel bi taxaw nga laaj ko di a wala b wala i wala na ma kan? bindal na ko sànq nga ma bindalee ma hmm. lii ko sama ma la bindal la ma bindal la ya xam ñoo koy des fois jubli du ya ni ngay def mo mun moo tax comme aduna lépp bàyyi xel rek chaque fu da ngay jàng kenn mënul dara kenn mënul lepp ba da yaangi ngi jàng ba léegi yaangi ba léegi ma ngi jàng musique ma ngi jàng lepp ma ngi jàng mais nu may ci nit ñi ma ngi jàng mi nu may ci nit ñi sax dama koy jàng mais du nit fekk yaay am xel doo romb dimension ñaar. mais yaa ngi fréquenté bu baax ñu nga xam ne comme rappeurs yi la yaa ngi leen di fréquenté di nekk ñoom. rappeurs yi samay samay waale samay waale mais léegi bàyyi naa bàyyi naa fekk ñoom di toog benn xarit rappeur laa. rek ni fi mu nekk nii boo. di da ngay sama xel mi nekk. Ah, nit nit a nit doo mën a ànd ak moom bokk leen bëgg-bëgg. wala bokk leen nit ñi nga tey ñi ànd bu la gisee ñi ñaar ànd am na am na am na lu loo xamante dañ ko tolloo. ah d'accord. tey tey xam tax. day hmm. boot bëri fiir moo bëri. Hmm. te nit ki fiiraange nekk ci bëggee la lay am. dëgg la tey métier bi nii ñuy def télévision yi firage am na ci. ah firage yi kenn waaw waaw. Ah. mais maanaam li ñuy def nii firage am na firage woowu muy muy ci dama bañ kii yi lañuy ah. bañ yomb mais tey nga nga gis ñu toog gis na maa ko mën nii maa koy téye tuuti wala sa waa kat bi fuloo nii da ngay am looy sentir bu ji kenn ko. Ah, ku ko mën a muñ am de am na ñu mënuñ ko muñ. mais sax loolu sa njëriñ yow. yàlla ko ba yàlla ko ko woon moom ko woon jàkka bañal bu ju kenn waaxit kenn. ah d'accord. yonente ñaata yonente yi wàcc mais Mouhamed muy nit benn Mouhamed du wàcc waat bu mel noonu mooy nekk dana yonente te Mouhamed daa am bàyyi am yaay. léegi nan la gën nan la gën a bàyyi yaay. d'accord daan may waar de. waar ma la <laughs> waxtaan. dëgg de. waxtaan dèjà man. bëgguma ngay gis nit ki rek. nga gis nit ki jëmmam bi rek. nga nga nga jàppee ko yenn mbaax. bon amul kuñ bon am wax. kan moo bon yow man tey am na ñoo tey dañuy wax saawa dafa bon saawa bon dañuy wax saawa dafa bon léegi ñu ñuy ba ñoom lay gis ci saa. gis-gis la rek. gis yow da ngay nit da ngay fexe am benn gis-gis. ci boo gis ku nekk nga gis-gis bu baax man daf nit ñi wooy ma jàkkaarloo ma ma ko jàkkaarloo ay géré am na am na nit ñoo xamante ne dof yoo xamante ne rek yàlla bu muy gis tàllal seen loxo xàmmee kon ñooñu nekkuñ dof man man baax jàpp ma leen dof dama leen jàpp ñoom ma la dimanche boobu rek dund yow daal philosophie am gis-gis bu baax dafa mel ni philosophie nga dund de yow man jànguma philosophie sax peut être mais li may jàng li sama li may utiliser sama xel mooy damay seet li nga xamante moom moo lan moo est ce que mën nañu xam yéen rappeurs yi parce que man rappeurs yi souvent nii la ñu ne ah loolu waral loolu. rappeurs yi meloon ñi am na ñoo boo fi daal leen xool sa caméra amul sens amul lu wax. rapport buy wéy. rapport bi wéy mën ngaa bind texte mais mënoo mën a def bopp nii. doo exploité li ngay kii daal. exploité wéy rapport nekk ci wéy. ah d'accord nekkul ne damay bind wéy yow mën ngaa bind wéy. nga bind daaw na sama caméra bi dem bi studio sama yokk ci ay baar ñu ne wéy na ñu ne wéy na ñëpp déggandoo muy saw ba rafet moom nag nii la mel naturellement ko waaye gën naa xam ne saw ah, naturellement nii la saw naturellement nii la wala saw dafa yéeg mel ni saw dañ koy invité mel ni wala naturellement saw nii la mel. Ah, naturellement di ko tox. Numanna Numan yeen lepp lu muy def gaay na classé ko xal aram aram kana ni musique bi may def ni mo aram d'accord mais man tok ni rek man concert yenn yenn place bu xalé sa tu ko ci ci rappeur rappeur la mais rappeur day dafa mel rappeur day def ci day dem lii métier mm. te métier noble la métier métier dafa am noonu fu muy yem métier dafa am koo xamante ni xam yow ci def ne yàlla lu nekk dafa wax ji ngay a téye. jëlee nu ko mën a seet waaw ku nekk ak sa. yarin quoi sa gis ak ak bëggee ak ñu la man man yare wuñu métier mm. mais am na ko tolloo yar day damm. mais yow métier nga ko def. lu tax lu tax ñu ne mu kan lu tax ñu ne mu kan boo demee ba mën a xalaat mën a def sa baay génn ci yow yaru baay amatu yaru yar sa bopp bi yar boo demee a yaa war a yar sa bopp yaa war a xam li nga bëgg yaa war a xam ah day jëfal ko rek saw famille saw kontaan de. damaa de ah? fu mu nekk nii émission bi ah. xam ci Firi Infos yow yaa ngi wax bi kii gars yi ak waaye ñun ñun ñun doo wax ci ñun. ñun Firi Infos nga xam fu mu nekk nii talent fu mu toog mu fekk ka fa coppate ko ñëw wane ko. Firi Infos sama dama am artiste yu bëri yu ngeen am. barke man ëtt ëtt yi nga xamante ne tey rek beneen ñi laaj xaalis xam nga di la wax defal li defal li man ëtt bu ma fi dem salaam firi yëngu firi free luy luy wax mini free free mooy mooy maanaam am am am léegi nag comme bu ko waxee tur tey moo tey lu bëri ñu ñëwee ñoom ñoom ñoom bu ñu xëyee ndax bu ñu xëyee suba ngoon nit jox ñu itam lu jëmale kanam free na mën a nekk télé a nekk télévision bi seetaan ci ni autorité wala wala leneen da xam naa lu seen financement am bu mel noonu ñu toog ñu ne ah tey télé internet yi nekk ci dëkk bi bëri ba ci génne deux wala quatre ah ñu génne benn carte. ñu ñooy premier ah. exemple ñu génne benn carte ñu hmm. ne ah nañ jox bay firi impôt bi xibaar bambo bii bii bii. gars yi est-ce que duñ bis pare tey jii boo toogoon un million. deux jours trois jours boo ñëwee fii. di xam na changement. non dinañ ko dégg. mais xam nga tey émission bi mooy kenn fay. ndax ndax YouTube dañ koy fay. dëgg la borom kër la dañuy dépasse. dëgg la caméra yi dañuy dépasse. dëgg la batterie dañuy dépasse. dëgg la sama waay waaw comme que mën nañu ko dañuy jéem jël mm-hmm. li nga xamante moom la bi moom. Mm-hmm. chaque année normalement. Mm-hmm. mairie bi war na mën a am financement loo xamante ne day génn si même pas ñu artiste sax amuñu artiste tey ñun tey da am concert tey nga war a ñëw jël prix boobu ne ko a jox benn cinq mille yow ah, ko fay ah. boo ay forum Ufarengo general que jobla te yaakaar ne boo fi ñëwee sax que la que a si me gën a kii même que mu am 10 abonné sax. mais ndéem def na ko job ba valeur yo su am ay papier de ndéem na yow da nga a da nga a ak ay millions mais nit ñi dañ dañ dañ a na affaire bi pour valoriser. di fi ñu xëpp million yi ñu xëpp ko fa. Mhm. xanaa ñii duñ am événement. bu ñu amee événement ñoom ñoo ñëw da ngay gis ku gàddu tàngaam daw bi ñu bis bu ñu defar. ma lay wax nii kenn ko dama kaa xam ko boobu. dëgg la dama xam milieu bi ci nekk ndax dama ànd ak caméra bu ma nekkee gàddu tey ci TV mhm. tëdd sama néeg si sama vidéo yi. Mhm. booy fa joob joobee xaaj te yu mel noonu tey boo ci doxee. gars yi war nañ war nañ daal. dañ jàppale gars yi chaque année ñu jox leen ji ma jox financement boo xamante ne bii 500 millions la 1 million boo xamante ne day génn ci mairie bi jëm. dëgg la loolu daal yaa ngi koy sensibiliser di leen ko koy dégg. dëkk dëkk bi tey bu kii amoon jàll kii am jàll kii am jàll. dëgg la dëgg ndax ni nga namm ay TFM yooyu. tey TFM na ma def tey ba doon international. te ñu bañ a commencé. ah tey Dakar nii Dakar nii tey boo waxee ñëpp naan Dakar Dakar Dakar Dakar dafa nekk mu nekk tey mbool bàyyi tey ku mën na am télévision boo xam ne de. mais mais mais kii bu ko def. dëgg la de. mais am na loo xamante ne nit ñi dañ ko def ñun autorité yi dañ génn la dañ jéem a jàppale seet li nga xamante ne mën na mën a taaral dëkk ngi def la war a def mais xel du doy. xel du doy de. bilaa walaay xam doy. nañu wax loolu autorité la ñun autorité boo waxee nit ñi dañuy xalaat foog ne bal. d'accord autorité daal ñëpp daal moom kenn daal nga wax ñaata ne balu balu kese nekku fi. ah tey ay ñoom mayaatin kamal si la bokk ay ñoom kaaw si la bokk tey nga ñëw day am fat saal si la bokk ay ay ñoom tala soose job si la bokk ay ñoom asan job tey ku nekk dafa bëri ay leader masha allah te leader yëpp ku nekk am na loo yàlla ci la ci dëkk réew def ko ci dëkk bu ngeen ko neexoon bay daaxa Dakar yoon na mais ba kenn warul liggéey gën a ngel man maa ngi war a sama wàll fii ku nekk da nga war a wàll même sa néeg sa da ngay def defar sa ëtt defar sa bunt kër defar sa mbedd yaa ngi defar dëkk bi. message bi mais li si joxe woon Linguère. message bi rafet na. Mm-hmm. <laughs> ñu koy jaajëfal bu baax a baax nekkoon ak sa famille. message bi rafet na yaakaar naa ne autorité yi dinañ la dégg. Mm-hmm. autorité bu soobee yàlla dinañ ci def lu ñu mën dinañ la dégg ñu koy jaajëfal bu baax a baax moo de la fin bi kontaan nañ de. waaw ah, ma gën a kontaan. Mm-hmm. wax gars yi nii rek. ñu ngi ci nekk. léegi ci la nga nekk rek fulaal. faydaal ko. fay daal jàpp ko sa yëf rek bu la joxee yëfi jàmbur a bi nekk na ay génn son rek ay ñeent ay classe ay classe en ligne. classe deuxième la dañ ay classe en ligne ku ngeen moom ay classe en ligne sax ñun classe yi amul njëriñ. amul njëriñ jox rek tey rapport yi dañoo war a bokk bi tey war nañu chaque bés boo ñëwee yi tey ku ñu bëgg a jàppale day ku nekk li la yàlla may ñu moom ko. dëgg la. yàlla nekk mais ku ko yàlla may. dëgg la dañ ko fa nangu ñu ay fiirante seen biir man jàpp na soxoral ay fiirante kii nii lay def nii kii lay. ay lay kii. lan mooy jotaay am solo mais am jotaay yàlla bindu ñu pour ñuy ci jëm ni man xar yi nga xamante xar ay git nag sax dañ leen di dajal moo leen di sàmm mais mu mel pas nit ñun mën nañoo dajaloo kenn sàmm ñu xam yàlla sàmm ku nekk mu def incha allah day am dóorandoo xàccandoo dóorandoo et bu baax baax mu na saw famille ci yor ak Sophie ah suñu émission yooyu yor ak nii rek la fi demoon ànd ak rapport yi tey comme ñun dañ ci doon ah indi ñi nga dañuy wëy ñu def ci lu grand waaye tamit rafetlu comme dañ ci am nag ay nag saw famille koy jaajëfal bu baax a nag def na fi émission bu neex kii mooy saw a la jox leen rendez-vous jeudi ci seen émission ëttu jigéen na samedi prochain beneen rappeur bu fekk la am comme rappeur yi ñoom xale def ñu jox bokk ma ànd ak ñoom ren di leen jaajëfal bu baax a